léegi mën ngeen ñoo topp ci plateforme yi gën a siiw ci réew mi mën ngeen ñoo seetaan suñu page Facebook bi di jant bi TV ma ne bul ko yeexee dawal gaaw fekku ñu YouTube mën ngaa def jant bi TV duggal gaaw te nga abonné soo abonné ba noppi bul fàtte bës na cloche bi loolu yi mooy waral vidéo bu dugg nga mën a am notification bi indil nañ leen site internet mën ngaa def jant bi TV point com sunu ñetti rajo yëpp mën nga ko déglu foofu ma ne su àdduna di dox da ngay dox ànd ak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 ورحمة والبركة عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين ربي اسع لي صدري ويسر لي أمري وعلو العقدة من لساني يفقه قولي بقي نينين لين زيارة لين نويت ويرو تدوي ويرو مقوي ويرو كور مي بارنغنل weer woo xamante ni nii ñun ñépp buñ ci góorgóorloo yàlla danañu dimbali ñu génn ci weeru koor gi ak ay jikko yu rafet ak ay jikkoy tànneef ñu génn ci ak ay jikko yoo xamante ni nii daañu mun a doxalam pénc daanu mën a defar ak mbokk daanu mën a jagal àdduna waaye daanu jag fële ci àllaaxira incha allahu taala nde weeru koor la ca ne lammiñ mënu koy tudd wallahi ndax yaatuwaayu la ca ne ak màggaayu la ca ne bu yàlla ne kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun yàlla nee na ma wàcc ci yéen weeru koor ma def ko muy décret waaye lu mu ko tàmbalee buñ ca bàyyi xel mooy yaa ayyuha alladina amanu ee eh yéen gaa yi nga xamante ni yéen a ngee bàyyi xel yàlla yéen gaa yi gëm yàlla boroom xam-xam mi dañ ni buñ nee ee eh yéen gaa ñi gëm yàlla lu waay jàppoon war na koy bàyyi déglu lu waay ne woon war na koy bàyyi te ñëw dégg lan la yàllay wax yàlla wooñu woo bu neex nag يا أيها الذين آمنوا كون دا فاي فيرندل ني ويرو كور ويرو أما أم صلولا واي أمنا مساج بو يالا نارا جالالي موتاخ مونيو يا أيها الذين آمنوا كوم نانكو واخي وون سي سونو وقتان يو ويسو بي موني يا أيها الذين آمنوا يالا نيوني كتب عليكم الصيام مو اندي باتو ديكريتي نا مان يالا تي كور kama kutiba ala alladina min na ma ko décrété woon na ma ko farataale woon na ma ko joxe woon muy ndigal min qablikum ña leen jiitu woon kon ña ñu jiitu woon ñu ngi doon woor kon ñu déggee ci ne décret la it koor farata la décret présidentiel da ngay dégg ni bu génnee ci journal officiel amatul xaar décret ba mu ngay dox kon yàlla it mi moom président yi ci àdduna bi yépp président yépp mën di décréter yàlla bu décréter moom sami'na wa ata'na rek a ca des sam'an wa ta'a loo rek a war a dégg jëfe yàlla ni décréter naa faratal naa yoonal naa ci yéen weeru koor comme na ma ko yoonale woon ca ña leen jiitu woon yàlla subhanahu wa ta'ala ni ñu nag li yépp bu ma ko defee jubluwuma ci teg leen lu metti waaye dama leen bëgg a yëgal ni li ma leen jox muy koor solo si mu am yitteel gi mu yitteel ak ni mu mënee defar doomu aadama ak ni mu mënee jagal àdduna ak ni mu mënee jagal nit ki fële ci àllaaxira moo tax ma ne yaa ayyuha alladina amanu yàlla jiital yaa ayyuha alladina amanu tànn ñamuy woo wan ñu solos la mu woote waaye it xamal ñu ni doon na ko digal ña ñu jiitu woon kon du ci ñun la tàmbalee mu pare ci nag mu ne ñu lii yépp bu ma ko defee ndaxte kuntum xayra ummatin uxrijat linaas taamuruuna bil maaruf wa tanhawna mun kar yéen day nekk ngeen aw xeet woo xamante ni xeet yi yàlla génne ci nit ñi ñëpp xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ca gën te yéenay xeetu yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon yàlla nee na yéen it ma digal leen ngeen di woor mais koor gi digaluma leen ko ngir teg leen coono ngir teg leen lu ngeen attanul ndaxte laa yukallifu laahu nafsan illa wusaha yàlla day du tek bakken ludul lamu atan waye tamit la yukallifu lahu nafsan illa ma ataha yàlla day lépp lu mu tek doomu aadama loolu cala wallahi ndaysan wallahi ndaysan wallahi ndaysan lépp lu mu tek doomu aadama loolu cala yàlla nit ñu nak comme kuntum xayra ummatin uxrijat linaas ta'muruna bil maaruf wa tanawna anil munkar looloo tax koor ma ci yéen koor gi ma décrété ci yéen koor gi ma faratal ci yéen laallakum tattaquun ngir ngeen jëlee ki ragal yàlla kon koor gi ndeka stage bi yàlla di ñu defloo épreuve la du metti du lu ñu àttanul mais épreuve la bu ñu yàlla defloo épreuve boobu dinañu permettre buñ ca génnee ñu génn ak diplôme bi ñu naan laallakum tattaquun kon mbokk yi fi mu toll nii ñun ñëpp ñu ngi stage message bi li ci gën a neex mbokk yi na ma ko waxee woon ci waxtaan wi ñu weesu al axlaaqu tayiba maxquuzatun min sahri ramadan al mubarak mbokk yi jikko yu rafet yi jikko yu tee yi jikko yu baax yi jikko yu tànneef fi mën nañ koy amee ci weeru koor gi mbokk yi te c'est fort possible te c'est possible tamit laay wax sax loolu moom lu mën a nekk la mais nag lan moo ñu koy may voilà la question lan moo ñuy may ñu jëlee ci weeru koor gi jikkoy tànnee fi ndaxte weeru koor mën nañ ci nàmpee jikko yu rafet mën nañ ci nàmpee ay xar baax mën nañ ci nàmpee yiw mën nañ ci nàmpee ak nite mën nañ ci nàmpee nàmpee yu dul jeex kon loolu moo tax suñu waxtaan wi mawdoo bi ñu ngi ko tënk ci weeru koor kat weer la woo xamante ni ni mën nañ ci nàmpe jikko yu rafet mën nañ ko ci jëlee kon jikko yu rafet yooyu naka lañ koy jëlee ci weeru koor loolu nag moo am solo mbokk yi weeru koor weer la woo xamante ni ni dangay xëy min tuluuci alfajr ila xurubi sams doo lekk ba ilaa xurubi sams fu jant bi fu weer euh, fajar gi fenke dangay ngay arrêté lépp luy lekk te ñëpp xam lekk ni mu ni nit mel ci lekk yàlla moo bindee nit faaw muy lekk ñu ne la kat di nga bàyyi lekk tàmbalee ko fii fajar gi xare ilaa xurubi sams ba ilaa xurubi shams fa jant bay soowee ba ba heure u allahumma laka sumtu ni ko nit ñi waxee ndax ndax ndax ndax laka sumt yi jot na ba heure allahuma laka sumt wa bika amant wa ala risqika aftart faghfir li ma qaddamtu wa ma aqart bu la neexee nga teg ca zahaba zama wabtalat al uruq wa sabbat al ajr insha allah wallaay ndeysaan ca heure ndogu ba kon mu mel ni nit ki buñ la nee bàyyil lekk tàmbalee ko fajar ba fa jant bay sowe bàyyil naan sa soxna si la daganoon ñu ne la bàyyi ko am na rëcc-rëcc yu la daan faral di dal ñu ne la góorgóorlul ba rëcc-rëcc yooyu bu la ci dara dal kon mbokk yi koor épreuve la kon épreuve bi bu ñu amee philosophie épreuve bi xam lan la ak lan moo tax yàlla wàcce ko ci ñun ak lan lay def ci ñun yàlla wax ñu ko muy la'allakum tattaquun tattaquun nag nee naa leen euh, package la package la boo xamante ni la mu ëmb ci ay mbaax kenn mënu koy wax dinañ ca dikk kon weeru koor gi ñu teral a lekk tere la naan tere la sa soxna si nga xamante ne lew na la domb takk nga ko ci faratay yàlla ak sunnaas muhammad alayhi salaatu wa salaam tere la yoo xamante ne yu baree bari mën na yàq sa koor mbokk yi loolu kon lan lañ ci jublu mooy yar sa bakken gis nga te ëllëg bu ñuy dugg aljana lan lañ ñuy woowee يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك غاديه مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال جوجو يلا نينا يا أيتها النفس المطمئنة يو بكن بسلبي إيه يو بكن بتيبي إيه يو بكن بست بي ee eh, yow mi tënkoon sa bakken ba selluloo ko irji'i dellusil tey ñibbisil fan nga jóge woon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moo tax mu ne la irji'i yaani woon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un irji'i ila rabbiki dellusil ci sa borom raadiyatan ngay ku ñu gërëm mardiya ngay delloo yàlla ngërëm mu lay félicité nga koy félicité

aljanna yoo xamante ni yàlla da leen koy ubbil ñu tànn bunt bu leen neex jaar ca kon loolu dafay wane ni koor dafa ubbi buntu aljanna ndaxte lu tax muy ubbi buntu aljanna ki woor weeru koor nag woore ko na ko yàlla digale bañ koy woore na mu ko bëggee waaw ñu nag senegal tàmbalee ko ci man mii di wax ak sama doyadi ak sama nigédi wallahi ndeysaan sama bopp la maa wax man mii sama nitadi ak sama taqaay ak sama doyadi allahu akbar waxuma kenn sama bopp la ma waxal man dama woore ni ma ko bëggee te yàlla décrété koor wan ñu nu koy wooree ni ñu nii ak nii la noo woore jaarale ko ci alayhi salaatu wa ñun nag danoo woore nin ko bëggee ndaxte kat bu ñu xoolloo tey julli yàlla dafa wax ni inna wóor na a julli tanha dafay tere alfasha ci lépp lu ñaaw wal munkar ak lépp lu nu sib mu bon kon julli médicament la boo xamante ni boo koy jël le matin jël ko tisbaar jël ko takkusaan jël ko timis jël ko geewe wax dëgg fa yàlla feebaru xol bu mu fekkoon ci yow feebaru nite di feebaru doye di gu julli fekkoon ci yow war na koo dindi ndaxte julli loolu lay dox te looloo am lan moo ñu koy may sallu kama raaytumuni usalli sallu kama raaytumuni usalli mu ne sallu julli leen kama raaytumuni comme ni ngeen ma gisee usalli ma koy jullee kon tamit nasuumu kama kaana yasuumu rasulu sallallahu alayhi wa loolu mooy alwaajib woor comme ni yonent bi doon woore te yonent bi وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دو واخ رك غير بغا واخ لام واخ يالا كوكو واخ لو تلا خد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لول لا ني واخون روي كاي بو رافيت روي تاي بو جيك روي كاي بو مات روي كاي واي فونو ورا جيلي ريفيرنس دو فن لودول سي عليه الصلاه والسلام وا كون نانو وور كوم نا يونتي بي دان ووري مي بونو وور كوم نون نين كو بغي تاي بو ني نه جولي dafay def jeexital ci xolu way julli yi boobu ñu ngee wax jullit bi nga xamante ni day julli comme ni ko ko yàlla digalee comme ni yonent bi daan jullee yàlla def ci xolam alxusuux alxusuux muy toroxlu allahu akbar kooku su jullee julli def ci moom jeexital julli dana ko tere ndagar walle dana ko telee sabaru dana ko telee taasu dana ko telee wuruj dana ko teree carte dana ko teree xas gor kon tamit wa kazalika a sawm a sawmu kazalik wa mbokk yi koor nag noonu la koor da poñe sa bakken lépp lu mu bëggoon ci shahawaat nga ne ko shahawaat yi danga koy bàyyi lépp loo xamante ni bakken doon na la ci yóbbu bakken nag mbokk yi buñ ko firee ci olof mooy bakkañ bakken du doyal bakkañ bakken mom xamul doyna xamul suur xamul fi lay yam bakagn rek bakken momu la koor ñëw ni la lépp lu xew ci aduna boko yere boko sété lépp bakken la xolal ñaawte fi am ci aduna bi xolal tas yaakar yi am xolal wuri gi am xolal sàcc gi am xolul fen gi am xoolal lekk alalu jàmbur gi am xolal depo kees yi am xolal fen saw askan wi am ci réew mi xoolal wax loo gëmul xoolal pecc mi yaatu ci réew mi xoolal pom mi yaatu ci réew mi afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun yàlla nee na moo ndax da ngeen foog ni dama leen a sàkk ndax am po wala bés du ñëw ngeen def retour ma leen di wax irji'i ila rabbik non mbokk yi buñ nax suñu bopp loolu day am wala ma ne Aboubacry Diallo bu nax sa bopp loolu dafa am nañ ci bàyyi xel te luy am la bés dana ñëw ñu jàkkaarloog yàlla te bés dina ñëw ñu wàcce ñu suñuy lal te moo ne day lal ba yaa ko jëndoon bés dana ñëw ñu génn la néeg bi te moo ne day kër ga yaa ko jëndoon bés dana ñëw ñu génn la fa fan ngay fanaan ci morgue ba kon ku foog ni yàlla daf ñu sàkk ndaxam po wala ëllëg du ñu dellu ci moom wallaay Aboubacry Diallo boo ko fogee nax nga sa bopp bés dana ñëw nga dellu fa yàlla subhanahu wa taala yow Aboubacry Diallo te boo koy def dañ la sang sang la jullee la gas pax ba mu xóot takk say loxo takk say tànk tàbbal la ca delloo suuf ci sa kaw te wallahi dafa am mbokk yi loolu kenn xëccu ci luy am la mbokk yu bës boobu nag li ñu ci mën a muccal am nañu occasion muy weeru koor gi ñu defaraat suñu toogaay bakken bi nga xamante ne lu yàqu moo ko yàqu moo ko yàq ci kaw suuf lu tas bakken ko tas bakken boobu ngay jël téye ko ci weeru koor poñe ko wax ak moom ni ko lii nga tàmmoon te yu ci bari lor rek la may jural te boo xoolee bakken bi di nga ko poñe ñaari yoon di ko poñe ci wàllu jikko muy feebaru xool yu baree bari génne ko ci moom ci weeru koor gi bu fekkee sage bi jaar na yoon woore nga ko comme na ko yàlla diglee woore nañ ko comme na ko yonent bi jàngalee bañ ko woore comme ni nu bëggee tey ñun Sénégal ni nu bëggee koor mooy bu koor desee ay fan da ngay dégg dañoo tëj saison bi ban saison la ñoo tëj yow ñu ne la dañuy jëng soytaan yow booy tëj saison bi danga mel ni sax kuy tekki seytaan looy tëj saison ban saison ngay tëj kon loolu ku koy woore xalaatoo woore comme ni la ko yàlla digalee kuy woore it oh mbokk yi koor gi ñëwati na kenn xamatul foo jëm koor gi ñëwati na koor gi ñëwati na kooku tamit narul woore comme ni ko yàlla digle weeru koor weeru mbég la weeru bànneex la weeru alxuraan la ci la guddig laylatul xadar nekk weeru njëggal yërmande weeru goreel ci biir safara weer woowu ku koy teeru danga war a bég da nga war a am leeru kanam danga war a am kanam gu leer naam loolu dafa war a feeñ ci suñuy kanam mais di gàttandu weeru koor di am ñëggi-ñëggi xol di jaaxle koor gi ñëwati na nangam ak nangam nañu tëj saison bi dernier jour bu ñu naan suba la ñuy woor nga ne naa ci taasu naa ci sabaru naa ci nangam naa ci nangam gàttandu lu woo koor comme nan ko war a gàttandoo koor boo koy gàttandu da ngay bég xam ni koor dafa ñëw ngir tàqale ñu ko lépp lu bon bakken boobu nag mbokk yi nga tera ko lépp luy ay shahawaat ndaxte kat yàlla mu ngi ñuy wax wa ama man xoofa maqaama rabbihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى allahu akbar yàlla nee na képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel taxawaayu bés pénc ba yaa ngi bàyyi xel taxawaayu yowmal xiyaam yaa ngi bàyyi xel bés bi yàlla di wàcce jant bi ba mu tolloog bopp yi yaa ngi bàyyi xel tàngaay woowu yaa ngi bàyyi xel bés bi ñëpp di des yaramu neen kenn du xàmme président kenn du xàmme imam ba kenn du xàmme kenn du xàmme mbokk yi ñëpp des yaramu neen bu fekkee yaa ngi bàyyi xel bés boobu wala man Aboubacry Diallo maa ngi koy bàyyi xel yàlla nee na wa naha nafsa anil hawa baatu nafs ñëwoon baatu nafs dellu si ñëwoon na ci yaa yetuha nafsul mutmainna ñëwaat na waa maaman xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa kon koor dafay ñëw ngir ñu tere suñu bakken bànneex buñ nee bànneex nag bànneex boo xamante ni dafay dugg ci hawa bànneex yoo xamante ni ni musiba rek lañuy jural muy lan passion yàlla nee na da ngeen di dépassionné seen bakken ci weeru koor puisque bakken boo ko passionné rek mu mu nekk posen da lay empoisonné vous mu empoisonné la dang koy dépassionné mu a passion bu dundul passion rek ko kon koor pour rocci luy passion ci suñu ni wa ma man wa nafsa 'anil hawa kon fa inna jannata hiya al mawa ku bëgg bëgg bokk ci ñooñ aljanna ñu tom ñu konte ci waa aljanna da ngay poñe sa bakken tere ko lépp luy bànneex tere ko lépp luy ampo po tere ko lépp luy caaxaan bu loolu amee nag mbokk yi poñe nañu bakken bi ci weeru koor commencé ko daana lekk heure yu baree bari waaye bakken bi lekkam yu bari yooyu sax mënoon nay lor sa mbàq wi mën na lor estomac bi mën na lor sa wér gi yaram muy côté santé bi yàlla ni la léegi limiteel ni nga doon lekkee 24 heures sur 24 wàññi ko ni nga doon naanee wàññi ko de ce fait nga noppal sa organe yi kon doontele am na ñu ne suumu tasiu du adis waaye ndaw wax ju rafet d'accord nañ ca waaye wax ji rafet na te docteur yi dañ ko dëggal ni koor dana maye wér gi yaram kon bakken bi boo ko poñee mu commencé def sa côté santé di baaxaat ci ñi nga xamante ni seen sante may na leen ñu woor te am seen ndigali docteur mu commencé defar sa côté santé noonu lay defaree amradul xalb amradul xalb yu nga xamante ni nit mu ngi koy doxaale muy feebaru xol feebaru ñàkk kersa feebaru ñàkk ngor feebaru ñàkk jom feebaru ñàkk a ruus feebaru ñàkk a maandu feebaru ñàkk a lewet feebaru xat xol feebaru sàcc feebaru tas yaakaar yooyu yëpp nit ki ko daan doxaale ku mel ni man Aboubacry Diallo bu koor gi ñëwee nga poñe sa bakken feebar yooyu da ko fajale ni ngay fajee ni koor gi di fajee feebaru yaram bi noonu lay fajee feebaru xol kon koor gi buntu pour ñu poñe suñu bakken commencé koy yar commencé koy jàngal commencé koy wanni looy dugg lu ne xoolal lan la ak lan la may jariñ lan la may yokkal kon feebar yooyu koor gi bu ñu wooree ni ko yàlla bëggee bañ ko wooree ñun nin ko bëggee feebar yu mel ni yu bari dina commencé koor gi di ñu ci commencé di di ko dindi ci ñun feebar boo xamante ni nii ñu wax kàddu gu bon walla kàddu gu ñaaw ñu génne kàddu yu jaaduwul weeru koor gi bu nu wooree danañu tëjloo suñu làmmiñ te bindkat ba ne woon na as sukuutu hikma te ma yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni man yu yuminu billah wal yawmi al fal yaqul xayran aw li képp ku gëm yàlla gëm pénc ba waxal lu baax te noppi kon koor danañu dimbali ñuy wax lu baax te noppi koor danañu dimbali ñu xam ne as sukuutu hikma noppi daal xereñte la waaye tamit koor gi dinañu ëndil ñu xam naka lañuy ñuy jëflanteeg ki nga xamante ni yàlla daf ko teg ñàkk mu xiif mënul xiif dab ko mar dab ko lori àdduna dab ko lor yoo xamante ni ni ñàkk mën jekkuwul àdduna waaye àddunaa ko jekku bu nu wooree dinañu xam ndeke nit daana ñëw ci ñun ni ñu ah alaaji ibrahima Cissé man day damaa xiif Boubacar ni ko alaaji gars yi dañoo mën a laaj waaye koor dina ni alaaji est-ce que yaa ngi fàttaliku ba nga wooree xiif nu mu meloon ci yow nam la lottalee woon na nga tëddee woon na nga daan doxee wax ja na mu wàññee ko woon nga commencé am yërmande kon koor buntu la pour ubbil ñu ay buntu mbaax buntu la ngir ñu defaru buntu la tay fi ñu tollu naan crise des valeurs dépravation des mœurs jikko yu yàqu koor buntu la ngir mu régler ñu problème yooyu parce que koor gi bu nu wooree comme ni ñu war a wooree dinañu commencé yar suñu bopp téye suñu bakken mu xool ci lan la ñuy dugal ak lan la ñu warta dugal bànneex ya ñu jiitaloon ñu commencé cay génn bëgg-bëgg yu inutile yi nga xamante ni ñu ngi koy topp ñu génn ca ñaawteef yi nga xamante ni par yenn saa ñu rëcc rëcc ay rëcc rëcc am ñu dugg ca koor dana ñu ci génne koor dana def ci ñun yérmade dana def ci ñun al adala muy maandute koor dina def ci ñun équilibre ñu xam wa kazalika jaalnaakum ummatan wasata bi yàlla di wax man maa leen def xeet bu équilibré koor dina ñëw équilibré ñu mbokk yi nag waxtu wi commencé na équilibré wu te kon fii la ñuy tënkee suñu kàddu ngir mi mën mbir mi mën a équilibré wu ba semaine bii ñu ñëwaat incha allah ñu génne nag jikko bu njëkk bi nga xamante ni koor dina ko def ci ñun te jikko boobu ñu ngi koy jëlee ci paquet bobu muy paquet bi ma leen di wax la alakum tatakhun mu nek ca felit tatakhun joju jikko bobu felit la ca boko bolé jikko yu bax yépp mu jox la taqwallah moy la alakum tatakhun kon waxtu wi xocc mbokk ñu len di nuy di len ziyara di len dig daje ci benen waxtanu koor al mawdu batay xam ngeen ko al axlaaqu tayyiba makhuzatun min shahri al mubarak jikko yu baax yi yu rafet yi yu tedd yi lu ñu mëna jëlé la ci weeru koor waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullah léegi mën ngeen ñoo toog ci plateforme yi gën a siiw ci réew mi mën ngeen ñoo seetaan suñu page Facebook bi di jant bi TV ma ne bul ko yeexee dawal gaaw fekku ñu YouTube mën ngaa def jant bi TV duggal gaaw te nga abonné soo abonné ba noppi bul fàtte bës na cloche bi lool yi mooy waral vidéo bu dugg nga mën a am notification bi indil nañ leen site internet mën ngaa def jant bi TV point com suñu ñetti rajo yëpp mën nga koo déglu foofu ma ne su àdduna di dox da ngay dox ànd ak